lii nag bu ngeen ko gisee mooy lettre à la république ndax gannaaw bu condamnation bi daanoo ñu ne dañuy jàpp Sonko six mois ak deux cent millions yi nga xamante ne da ko war a jox ki nga xamante ne moo di Mame Mbaye Niang yéen a ngi gis verdict bi dafa daanu rek population Sénégal population Sénégal bi ñëpp jóg ne loolu d'accorduñ ko tey d'accorduñ ko ëllëg ba tax na ñu daal di baare li nga xamante ne moo di VDN bi yëpp ba kenn mënatul a jàll foo romb gis gis fa ay saxaar gis fa aussi ci tamit ay eh, tàkk-tàkk li mooy wane que ni jeunesse su Sénégal bi dañoo am yaakaar ci eh, politicien bi nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ndax ñëpp jox nañ ko nopp te ñëpp dañoo bëgg mu fësal li nga xamante ne moo di projet bi nga xamante ne yàgg na ko mbëbët depuis 2016 loolu mooy suñu xibaaru tey di leen ñaan ngeen wéy di abonné di. partagé vidéo bi wax leen seen xalaat ci ni ngeen gisee condamnation bi nga xamante ne dal na ci kaw Ousmane Sonko ba xam ndax di ngeen d'accord pour mu nekk candidat wala da ngeen di bàyyi justice def li nga xamante ne moo di euh, liggéeyam lépp lu nekk seen xalaat ñoo ngi leen di ñaan ngeen def ko ci commentaire yi ñoo ngi leen di toppal information yi lépp lu ci mënti rod rek dina nañ ko baaxee ci cartoon yàlla actuellement ñoo ngi sur les lieux ñoo ngi sur les places waaye dañuy def ba di leen jox information yu légal wér te wóor